simplement xam nga politique wala gouvernement il faut nga jël en fonction des situations dañu génnoon ci élection 2019 président de la république def campagne bu rafet renouer contactam am avec population am population am defar ko rafet président ne effectivement lu mu constaté ci élection bi demande sociale bi dafa fortoon donc mu ne kon pendant cette période la dana dindi premier ministre pour que moom mu a liggéey directement avec chaque ministre pour mu bañ a am ay retard loolu la def te dëgg-dëgg ku gëm yàlla gis na ne effectivement que pendant cette période la lu mu bëggoon def def na ko lu mu waroon def def na ko daf ko def ba pare xam nga dafa mel ne dama jox benn exemple dafa mel dafa mel ne que dafa jël raay yi pare ma jox exemple rek terre bi boo defee terre def raay yi jënd wagon yi def test yi bu mu desee juste pour mu circuler foofu lañu ñu gouvernement bi agsi léegi foofu moo tax président ne léegi lu mu bëggoon def def na ko